Euh, la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko qui reste quand même une actualité fii ci Sénégal. Mhm. Euh, gis ngeen démb coalition wala bokk euh, député yi Askan Wi génn nañu joxe nañu ay arguments mu mel ni DPG bi nit ñi di xaar dafay bon xaw mel ni lu dul am. wala boog foo moo la nar a nekk. Ah. Euh, ban gis-gis ngeen am ci argument yi nga xamante ni joxe nañ ko waa Yewwi. bon wo euh, comment dire am na lu wax lu ñu wax lu nekk dëgg mais am na loo xam ne ko nekkul dëgg. wax lu nekkul euh, lu ñu wax lu nekkul dëgg fay bon ma lu ma clarifier un peu lu nekk dëgg moom mooy c'est vrai. que déclaration politique générale nekkatul ci règlement intérieur. wante mu ngi toujours ci constitution bi. Mhm. te constitution en termes de loi moom mooy supérieur règlement intérieur. Mhm. te loolu lu koy contrasté moom mooy Amadou Ba si même loi bi même règlement intérieur bi def na déclaration politique générale ci même loi bi ci même réglement bi député Pastef yi doon wax démb ci lañ sukkandiku pour def motion de censure. te loolu tam nekkul CELE bi. xam nga lu ma la wax non mhm. loolu mu ngi ci règlement intérieur bi. Mhm. motion de censure bi disposition boobu mu ngi ci règlement intérieur bi comment ça se ñu justifié wu ñëwaat règlement intérieur bi kenn touché wu ko ñu ne. Euh, ñu ngi basé wu ci fu nga xamante ne moom mooy règlement règlement intérieur bi pour ne motion de censure am

parce que majorité bi waa opposition ñoom ñoo ko yore. te baaxul ci lu nga xamante ne moo di moom baaxul en tout cas arrangé wul ñoo xam ne dañoo di pouvoir parce que dañ la critiquer à tout va. et puis c'est un moment boo xamante ne nekkul moment bu palpa bu propice. boo xamante ne premier ministre na taxaw jaaxaaroo député yoo xamante ne di ko yàq lu mel ne xamee ni ñu wax loolu loolu mooy argument bi mais pas que sukkandiku ko kon nu leen neexee. Ah intérieur yooyu noonu Ba defee. li nga xam su lañu sukkandiku pour euh, def motion de censure pour daaneel gouvernement Amadou Ba mais comment ça se fait que après ñu ñëwaat nañu boo loolu motion de censure léegi mënatul am déclaration politique générale mënatul am parce que ça les gens ay argument politique la pour man éthique politique dañ ko war a doxal toujours et puis encore que ñoom ñoo doon woote ne bon affaire dafay changer rupture doo basé aussi ay circonstances yoo xamante ne mhm. fa daf la défavorable mhm. ngay génn xamante ne bon taxawul fenn déclaration politique générale wax na nekkul ci parce que supérieur depuis 2019 lañ ko dindi loolu am na mais motion de censure bi mu ngi ci règlement intérieur bi ba sax bu même su fekkee nekkul sax mu ngi ci constitution parce que constitution moom moo supérieur règlement intérieur donc contradiction yoo xamante ne daal pour man bon pour man booy politique aussi tamit da ngay da ngay wax dëgg